Sénégal gii ñu ne. soxla na jàmm. soxla na jàmm laay. lanu daan dégg. lanu daan dégg. ci yeneeni réew. ci yeneeni réew. tey jii. tey jii. moom la ñuy gis. moom la ñuy gis. si sunu réew. si sunu réew. kon ñu ngi tàllal loxo yàlla. nee na ñu ngi tàllal loxo yàlla. mom borom yërmande ji. moom borom yërmande ji. di ko jaare. di jaarale ci loolu. Seydina Isa mi nga xam ni. ci Seydina Isa mi nga xam ni. mooy buntub Seydina Limaamu. mooy buntub Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam. Seydina Limaamu. te Seydina Limaamu. sunu borom defal na ko. te sunu borom defal na ko. amul intermédiaire. amul intermédiaire. digganteem. digganteem. ak saa borom ak saa borom. kon ci foofu. kon ci foofu. ci boobu bunt. ci boobu bunt. la ñuy jukki. la ñuy jukki. taataan foofu. taataan foofu. sukk fa. sukk fa. ñaan fa ñaan fa yàlla. sunu boroom. sunu boroom. fay. fay. tàkk-tàkk bii. tàkk-tàkk bii. di melax. di melax. ci réew mi ñu ne. di ñaan yàlla. di ñaan yàlla. sunu boroom. sunu boroom. leeralaat. leeralaat. xol yi. xol yi. ndax xol de. ndax xool de. mooy doomu aadama. mooy doomu aadama. yal na yàlla leeral xol yi. yal na yàlla leeral xol yi. ba nu mën a gis lu baax. ba nu mën a gis lu baax. di mën a dégg lu baax. di mën a dégg lu baax. di mën a jëfe lu baax. di mën a jëfe lu baax. ndax lii de. ndax lii de. warul jaaxal kenn. warul jaaxal kenn laay. fi àdduna toll. fi àdduna toll. ah ku tàkkalewul. ku tàkkalewul. war ngaa tiit. war ngaa tiit. surtout. surtout. Sénégal gii ñu ne. Sénégal gii ñu ne. waaye nag. waaye nag. amna la nga xam amna la nga xam ne. surtout réew mi. surtout réew mi. nga xam kilifa diine yi. kilifa diine yi fi ne. ñoo ko ŋànk. ñoo ko turux boo fi dem. te kër goo fi dem. fa fa ba fa ci ci ñu leen di loxo ñoom itam. ñu leen di loxo ñoom itam. ci barke bis bi. ci barke bis bi. ak. ak. ginnaaw ñoom ñooñu. ginnaaw ñoom ñooñu. ñoo yilif. ñoo yilif. Sénégal Sénégal. ñun dey. ñun dey. am nañ part de responsabilité. am nañ ci part de responsabilité. wala man mii. wala moom mii toog. bas bas Thiaw pour mu gën a oyof. pour mu gën a oyof. ma jël sama responsabilité bopp. nee na mu jël moom ay propre responsabilité am. ñaan yàlla. di nga xam ni kii nga xam ne. mooy sunu jiitum réew. mooy sunu jiitum réew. ñu ngi koy ñaan. ñu ngi koy ñaan. ci barke bu woote bu tedd bi ci barke bu woote bu tedd bi mu jàppale. mu jàppale. Sénégal. Sénégal. comme na mu ko daan jàppale. comme na mu ko daan jeeta jàppale. mu dimbali. mu dimbali. Sénégal. Sénégal. comme na mu ko daan. comme na mu daan. dimbale. dimbale. te itam. te fàttaliku nem. itam. te fàttaliku itam. bu mu bëggee. bu mu bëggee. jot jot. ci nguur gi ci nguur gii mu yor tey. fa mu jaar fu mu jaar. ba sunu borom tay jox ko ko. foofu mu jaar. foofu mu jaar. ba sunu borom jox ko ba sunu borom jox ko ko. sunu borom nag. sunu borom nag. day buur te du nit te du nit. yorul xol te yorul xol. mën naa jaare neneen. mën naa jaare neneen. dindi ci yow. dindi ci yow. te doo ko te doo ko moo tax sunu njiit loolu. moo tax sunu njiit loolu. di président de la république. di président de la république. sañ nañ ko ñaan. sañ nañ ko ñaan. ndax ndax ñoo bokk réew mi ndax. ndax nag ndax ñoom nag. ñun jeunesse bi yëpp. ñun jeunesse bi yëpp. ñoo ko faloon. ñoo ko faloon. waaye tey jii fii yëfi toll tey. waaye tey jii fii yëfi toll tey. mel na ni. mel na ni. jeunesse bi daal. jeunesse bi daal. daanaka. daanaka. ay xaraleen tane. ay xaraleen tane. yàlla na ci nu ci yàlla musal. kon ñu ngi ñaan kon ñi ñi ngi ñaan yàlla. mooy sunub njiit. njiit. njiit. njiit. sañ ngaa yëkki. sañ ngaa tegaat. sañ ngaa tegaat. njiit. njiit. sañ na yëkki. sañ naa yëkkati. sañ naa tegaat laay. li mu yëkki de. li mu yëkki de. yëngalaan na réew mi. yëngalaan na ko de. ku xam. ak ku xamul. ku taal sa oto dem. di nga xam ni. réew mi yëngu na. kon moom mi nga xam ne mooy njiitu réew moom mi nga xam ni mooy njiitu réew mi. di sunu président. di sunu président. waaye waaye nga. waaye nee neen ko. nee nee nga. ñu ñaan la ci njëkk. ñu ñaan la ci njëkk. waaye ci bisub Baye Laay bi alayhi salaatu wa salaam. waaye ci bisub Seydina Limaamu bi alayhi salaatu wa salaam. barkeb Ajibo Daayela bi. barkeb Ajibo Daayela. waaye euh, euh, président Macky. waaye président Macky Sall. maa ngi la koy ñaan. Serigne Bachir laay nee mi ngi la koy ñaan. ci barke bu woote bii. ci barke bu woote bi nga tegaat lépp. nga tegaat lépp laay. dégg la ak na ngay waxee ak moom. ak moom. waaye du nay ragal de. dafa fekk fekk ni day kilifa. te mooy njiitum réew mi. waaye ñaan nan ko. mu teg mu teg. lépp lu mu yëkkati. teg ko ci suuf. ngir. ngir ndaw yi réew mi ndaw yi réew mi amaat jàmm amaat jàmm mag amaat jàmm amaat jàmm ci gàttal réew mi mi yëpp amaat jàmm amaat jàmm